Euh, def na kan moo génnee boobu le bulletin kan moo ko yóbbu euh, ci place publique kan moo ko génnee ba tax na euh, foo dugg ci réseaux sociaux yi daal di ko fay gis loolu nag moo jaaxal ki nga xam ne moom mooy procureur te ñi nga xam ne ñooy l'administration pénitentiaire ñoo ko daal di jël ko daal di ko jagleel ki nga xam ne moom mooy ministre de la justice di Aïssata Tall Sall mu nekk ab lettre boo xam ne ñu gis ne mi ngi ca mbedd ma procureur nag am lu ko metti lool lool lool moom Abdou Karim Diop daal di sàkku ñu ubbi ab l'enquête ngir xam kan moo fiitaloo boobu leeral rapport boobu lee bulletin oh, waaw jàpp naa ne kon période bi bu ma ci waxee moom dina doon loo xam ne lu xel di nangu la ndax jiital nañ li ñu war a jiital euh, yaakaar naa nag procureur amaana jamono bi dafa am jot gu bëree bëri gu mu amul woon. démb ak barki démb. Mm-hmm. bu dee sañ nañ ko waxee loolu. parce que jàpp naa ne jot gi mu am tey ama ko woon bi nga xamante ni Ousmane Sonko ñu ngi koy photo ci biir euh, état d'arrestation bi nga xam ne nekkoon na ci biir oto takk der yi. Euh, euh, ñu jëlee woon ko ca wetu Koungheul te Anita publié woon photo yooyu. dëgg la jàpp naa it ne procureur amaana dafa doog am jot mais dafa jàppoon jamono bi nga xamante ni ñu gis ay vidéo yoo xamante ni ñu ngi ciy torturé ku ñuy tuddee Pape Abdoulaye Touré. Hmm. di ko dóor dóor yoo xamante ni jàpp naa ne ña ko doon def même bu ñu doonoon sax ay force de défense amuñu. Euh, droit di def loolee benn doomu aadama hmm. loolu di leen beneen bi mooy procureur tam mu ngi doog am jot bi nga xamante ni enquête interne bu gendarmerie bañ defoon ci mbirum capitaine Touré. capitaine euh, Ousmane Sonko toogoon daanaka conférence de presse waxoon ci lu bëree bari dëgg la Pape Alé Niang moom tegoon nañu ko ci loxo. Mhm. mais am na ci jamono yooyu ñoo xamante ni enquête yoo xamante ni amaana wareesoon na ko ci def. mais amaana boobu dafa amul woon jot pour def ko. léegi nag tey suñu borom <laughs> dogal na euh, bi nga xamante ni moo di bulletin de santé wu Sonko génn na. Mhm. Euh, tombéeg mu am jot. amaana pour mu mën a <laughs> ubbi ci enquête. mais lii téeloon askan bi dëgg-dëgg xam nga lan la. mooy li ñu njëkk jiital ci waxtaan bi mooy wax ci solos wér-gi-yaramu Ousmane Sonko wax ci solos li nekk ci biir bulletin boobee mais li nga xam ne moo yitteel politicien bi mooy kan moo génnee xibaar bi xam nga nag gàcce la ci am réew mm-hmm. bu ñu demee ba décision yu ni mel wala ba itam taxawaay yu ni mel buñ ko amee lu mel nii moo xew mm-hmm. ñun de bëggoon nañ bu baax a baax a baax a baax a baax coow yi ñu fiy dégg ci ay scandale ñu fiy dégg ci ay tooxi doona ci réew mi procureur du xaar mukk ñu ko ciy woo. Mhm. mais def ci jógal boppam. comme ni xam ne jógalee na ko boppam nii ci mbirum bulletin bulletin de santé mais lan moo waral lan moo waral mu soxal leen de trop. xam nga xam nga dëgg la. waaw doonul war a génn. mais lan moo tax ñu koy wër. protéger vie privée wu Ousmane Sonko la wala protéger li nga xamante ni moo di feebaram askan bi bañ koo xam ngir que yërmande bi ñu war a am ci moom buñ ko am ci moom. Mhm. boo ma tegalee ñaari question yi dama naa la dañ ko li leen ci métti. moo di wér-gu-yaramu Ousmane Sonko bi ñu doon wax ne garaawul. mu ngi ci mu ngi wér mu ngi ci jàmm Ousmane bi ñu doon wax loolee bulletin bi génne wax ñi safaan ba dama jàpp ne lii mooy li leen métti mais du question ko nëbbal Ousmane Sonko ay faayam li tax ma wax loolu. mooy sa waroon sa nañ lool ci débat wu rien yi nga xamante ni Ousmane Sonko amoon na ci problème. ci garab dafee bu njëkk ba. Mhm. la ko waraloon mooy indi ko ci place publique bi def ko ci plateau télévision yi. jox ko sax ñenn ñu koy poser comme question que ne ah ku am problème bi est-ce que mën naa doon candidat. Mhm. ku am problème bi est-ce que mën naa yorum réew. boobu jàpp naa ne doonul woon seen problème mais bii li tax mu doon seen problème. dëgg-dëgg mooy politique def ci làqu boo xamante ni dafaa weddi ay fen. ok mooy Ousmane bi ay avocat am doon wax bu yàgg ba léegi. keneen wér-gu-yaramam nii la mel. ñu ne leen non waxu leen dëgg. Mhm. keneen ak keneen ak keneen ku nekk wax. ñu am sax ay version yu wuute mais toujours ñuy jël bi nga xamante ni mooy war ne Ousmane a ngi ci wér gu yaramam mu ngi ci talam li mu nekk moom la neex nga ñuy gëm loole am bulletin bu génn ñun xamuñu ne mu génne xamuñu la ko génnee mais ñàkk sóor borom bi toujours mooy ñëw di arrivé wu seen kaw di tegu seen kaw nii en tout cas Sénégal yi moom xam nañ on dirait que ne euh, bulletin bi bëgguñu woon. bëgguñu mu génn bëgguñu woon mu génn dafay dëggal. ndax dafa dëggal ne euh, Ousmane li ñu li ñu li ñu li ñuy wax ci wàllu wér-gu-yaram. fu ñu ko natoon ñun luñ ci xamoon ndeket la am moo ëpp. moo gën a pire voilà. Ismaïla Madior Ousmane même bu nekkee woon tànn woon a ndekki amaana dañ ko ko forcé woon dañ ko ko joxoon dañ ko ko sax xoloon. Mm-hmm. ndax koo xamante ni ci wàllu discours. jàpp nga ne mënoon na doon na leader boo xam ne mën na toog une heure de temps sax di tenir benn discours boo xamante ni lu mu ci wax amaana du ci dellu si waat wa illaa day doon sax wala wala boog day doon loo xam ne lu cohérent la li ñëpp mën a dégg kookee ñu def benn la mu nga déliré di wax loo xamante ni kenn xamul lan voilà loolu yëpp feeñ ci communiqué bi wala boog itam feeñ ci bulletin bi non procureur bu dee ne APR la fi nekkal moo yeey autosaisine moo yeey jog ah bu dee ne affaire la fa nekkal. Ah, mooy yee jóg xamul ndax a nekkal. moom la fa war a nekkal mais nag mais nag li ñuy jot a gis. yu ci yu ah. bëree bëri dafa mel ni li ma li ma njortu ñu bëree bëri am nañ droit pour njortu ko. Mm-hmm. mais nag njortu képp lañ ci am. mais bu dee ne loolu mooy li ko tax a jóg. autosuffisance boobee dama jàpp ne lenn képp la moo di mbirum Ousmane mi ci bëtu askan bi. moo leen métti mais bi mm-hmm. Ousmane la ñuy nëbbal ay secret am xamul ndax. mooy Ousmane bi ñu ko jàppee ba bi ñu ko jàppee ca ca ca ca Koungheul côté Koungheul. caravane de la liberté pourtant lu gàtt gàtt nga jot ay ay photom ci biir oto bi mu nekk. yemuñu ci kan quelque temps. Oh. nga gis bépp bagage boo xamante ni yore woon na ko. passeport ak li ni mel passeport. ar arme bi nga xam ne sax. Euh, ba yow ci sa bopp boo soxla woon boo soxla woon jamono bi xam identité Ousmane Sonko lépp. bu la neexee nga dem ci publication page Anita Diop. effectivement lépp loo xamante ni données personnelles la yoo xam ne Ousmane Sonko la concerne mën nga ko fekk foofee Anita Diop bi. léegi pourquoi ci guddi yooyu moom dafa ñëwoon benn gëstu wala boog itam dafa ñëwoon benn enquête pour xam Anita kan moo nekk ci ginnaawam. kan moo ko jox image te mu doonoon lu gën a yomb. ak kan moo photo Ousmane Sonko parce que boobu les journalistes yi nekku fa. mooy li gën nekku fa ko photo euh, <laughs> Anita moom moo arrêté Ousmane Sonko ba war a mën a jël ay bagaasam ay papiers di ko photo di publier. dëgg la mais yooyu yëpp après dañ ciy gëmm comme si que yëguñu li xew après nag bu mbir yi xewee nga bëgg ñëw am benn réaction bi mais askan bi dañuy dellu démb te démb tey jafe war a dem xam lu tax. lu tax ñun ñëpp daf ñu fay fekk muy benn. dëgg la beneen mooy da ngaa interpeller sa téléphone képp mu indi la démb. ah ANACIM li mu publié ay weer képp la def. dëgg la soxlawul ñuy dem dem ak bërki dem. te boo duggee ci Pape Abdoulaye lañ ko def ay weer képp la def fi la ñu fekk. Mhm. en même temps image yi bu dee ne procureur daf ko gisugul ñun mën nañ ko ko indir wan ko ko. léegi nag yooyu yëpp nag bu dajeewee. waaw waaye dinaa taxawaat nag def analyse tuuti ci procureur ak taxawaay yi nga xam ne jot nañ koo gis diggam ak Ousmane Sonko. Mhm. procureur boobee nga xamante ni moo bëgg a jóg ngir gëstu lu ni li tax ba duñ jàpp ne pour sàmm kaaraangeeg Ousmane Sonko la wala bëgg itam sàmm euh, euh, vie privée. Mhm. moo def benn conférence de presse. génne ci ay vidéo yoo xamante ni yow ak keneen ak keneen. Mhm. xam nga ne kii dafa sos. waaye demeewul nii maanaam parce que li mu indi. ñi daan sos ñoo ko daan wax. ok ñi daan sos ñoo ko daan teg. mais discours boo ci jël début à la xam nga ne moom moom ku maanaam continuer bi mu indi. li mu ko jox. bokkul ak li nga xamante ni moo di lii discours bi dëgg dëgg parce que boo daggee discours bu jàmbur jël ci la nga arrangé li nga xamante ni amaana jàpp nañ ne moo doonoon lu jëmoon ci askan bi wala boog itam li waraloon wax ji nga teg ko jël rek li nga xam ne bi kenn du comprendre lan la mm. et puis réaction képp képp képp boo ko indee il fallait que mu doon lu ñaaw mais ki def bu indee li mu def après ki fayu bu ñu indee li mu fayu la xel di mën a dégg mm-hmm. mais taxawaay boobee amaana procureur dafa amul woon jot pour war a mën a indi discours yu gudd yi moo taxoon mu dagg mu am parti yum mu dagg mais parti yu dafa méngoo parti yi nga xamante ni boo dee bëgg yàq dër nit wala boog boo dee bëgg euh, tilimal nit da nga kaa mën a teg ñu dégg naa ah, kii kat wax dëgg yàlla moo wax lii deram yàqu na mais pourquoi ci jamono yooyu ni mu defee woon yitte ak jot ci dagg parti yooyu nga xamante ni koo bëgg jaboli si man nga ko ci def mënoon ma dagg ci biir même discours yooyee mm-hmm. loo xamante ni da ngaa seetal waaye defut ko dëgg la. te yaakaar naa ne loolee warul doon taxawaayu koo xamante ni ñëpp la fi war nekkal waxuma nag koo xam ne ñëpp la fi nekkal. Mm-hmm. parce que waneegu ko. amaana bi ñu defee changement yi jëlee fi ki fi nekkoon amoon nañ sax njortu ne changement dina am. Mm-hmm. mais ndax moom dafa dugg ci biir ñi jàpp ne Ousmane adversaire politique la mais dinañ changé turu adversaire politique bi mais tuddee ko adversaire u Sénégal. ndaxte li jafe dëgg-dëgg. mooy Ousmane ñu mu jëloon dañoo bëgg wan nit ñi ne Ousmane du adversaire u APR. APR du adversaire u président Macky Sall mais adversaire u réew mi la. dëgg loolu la ñuy jaay discours boobu la ñuy jaay askan wi. Mhm. jaay ko ñu bëree bëree bëri est-ce que procureur dafa bokk moom ci ñu jënd discours boobu wala déet fekkee jënd gu ko. ñu ngi mhm. sàkk mu ñàkk koo jënd. ok ndax mooy li gën. xam ne Ousmane du adversaire u réew mi ci suñu gis-gis ñun ak li nga xam ne gis nañ ko mu doxalee ko Mhm. mais adversaire u APR la peut-être bu leen neexee. ok wala adversaire u Macky Sall la bu leen neexee ci langul politique buñ ci tollee nañ leen bàyyi ñoom ñu def seen politique mais nag taxawaay yii muy amal wala boog itam taxawaay yii muy gis. Mhm. encore une fois doonul benn yoon lu leen di jox cër wala boog itam lu leen di jox respect. ok ndax ñaaw na. sa benn sa procureur bi nga xam ne yow amaana jox nga ko cër lool. respecté nga ko lool mais mu def déclaration nga yëg ne lépp luy incohérence na ci biir discours bi. lépp loo xamante ni ay preuve la yu mu teg ci kaw taabal ji jàpp na lii mooy lim la waroon a convaincre mhm. wér na ne sa doom bu ndaw bi ci kër gi sax convaincre ko mhm. parce que niveau de fi mu yegg léegi dama ko wax ñu bëree bëri que ne buñ ci bàyyiwul xel surtout que suñu ay kilifa danañ yàgg daanu ci ay jël li tax loolu mooy yow mi nekk ci biir kër gi sa xale bu ndaw bi mujjee judd boo amul chance moo la ëpp information effectivement kon kookee bis boo xëyee ñëw pour nax si ko jàppal na yaa ngi koy nax ci ci lu mu xam ok mën na laa ruus nag waylaa mu ragal la nga wax ba daaneel doo fa dégg baatu fen jëpp mais yaa ko déggul mais làmmañam mu ngi répété ci biir naan yaa mën duul parce que xam na bu baax a baax li nga koy jox information yi nga koy wax xam na ne du dëgg encore une fois taxawaay yi ñuy am nañ koy leeral di ko rafetal ba nga xamante ni dina jafe nit ne justice bi ak politique bi dañoo lënkaloo te bu ñu lënkaloo dafa am fu ñu féetewoo moo di ñiy incarné nguur jamono bii. Mm-hmm. lii waral toujours ñi koy wax di am raison mooy acte yu ni mel. ok dëgg la procureur loolu taxawaayam la war na ko def. mais dafa bëri yu mu fi bàyyi. parce que ñi nga xam ne que ne Ousmane Sonko dañoo violer li nga xam ne moom mooy ay droit am. maanaam dañoo diffuser li nga xam ne mooy données à caractère personnel. Ousmane Sonko bi ñu violer ay droit am. c'est pas la première fois aussi Ousmane Sonko ci violer ay droit am la ñu dëkk. Mm-hmm. Ousmane Sonko ci boppam kay. amaana moom benn yoon la mos a violer <laughs> te ba léegi mënuñ naa ñàkk ko mën a prouver na ba tribunal lañ ko ne ko non non non dëgg dëggaluñ ne viol am na. mooy ci mhm. Adji Sarr mais bu ko booyee depuis boobu ak léegi ñi mu jëloon ay violeur lañ ci moom. ok parce que toujours dañuy violer ay àqam ak yelleefam. violer ko moo tax saaba si fay jox ko bëgg ci àtte bi ñu doon amal ci mbiram. ne mhm. nañ ko delloo ci liste électorale yi. violer ay droit am moo tax désigné duñ ko jox fiche de parrainage. Mhm. violer ay droit am moo tax ñu barricadé ko këram lu mat cinquante cinq jours ba lu ko ëpp te amul benn kayit buñ ko notifié ne ko lii ak lii ak lii moo tax. lu ne. da ngaa dégg tey ministre intérieur nga laaj ko ci mu la jàmmi réew mi la ñuy dox. parce que fii ku fi ku fi def nangam dañ laa jàppee nangam. Euh, nga def trouble à l'ordre public. te pourtant dañ laa jàpp buñ buñ doon respecté say say droit képp dañ laa notifié këyit ne la kat yaa ngi ci état d'arrestation parce que lii ak lii. Mhm. buñ la fa jëlee pour respecter say droit duñ la yóbbu sax sa kër dañ laa yóbbu prison. Mm-hmm. parce que droit ba nga am jamono boobu moo ñuy téye pression ndax da nga def trouble à l'ordre public. à l'ordre public. mais comme si que respecté wuñ seen sax te droit wu njaboot respecté wuñ droit wu cité kër góor gi ña fa dëkkee ñëpp. moo tax ba ñu baaree koñ ba lu toll ni cinquante cinq suuf. dëgg la jafe ci biir ñàkk respecté droit yooyee. Mm-hmm. yaakaar naa ne ci lañ ko attee par contumace te xamoon fa mu nekk. ci ñàkk respecté droit yooyee nga xamante ni moom am na ko moom Ousmane Sonko. Mm-hmm. ci la wér-gi-yaramam sutantee wala boog sax lu jiitu loolu ci la ñu ko tegee loxo mm-hmm. mais Ismaïla Madior Fall ne contumace bi ba léegi mu ngi tegu ci kawam dëgg la Ousmane kon yaakaar naa ne kon bu dee procureur dafa jot tey pour respecter ay ay ay droit ak ak yelleef Ousmane Sonko dañuy laaj ah procureur xanaa da nga diggan xanaa daf diggan ci réew mi ok <laughs> wala boog itam Ousmane mu ñu teg loxo jamono bi daa bokkul ak Ousmane doon dund boobu ba léegi su doon Ousmane doon dund boobu léegi la de wax dëgg yàlla àqam ak yelleefam ak ay droit am bi ñu yàggee gis ñu koy suuxal ak itam di ko soofantal. yàgg na trop yemuñu tu yematuñu ci moom mais droit wu réew mi ci moom lañ tàmbali di salfaañe ci. xeex bi ñuy xeex ak Ousmane. ndax maa ngi la koy wax lu bare bare. kenn la bi ñuy xeex ak Ousmane toujours dañ ci war di bàyyi xel Sénégal. kenn mhm. Sénégal moo ci jël ay coups yoo xamante ni dana ko delloo ginnaaw lu bare bare bare ci mu amoon ci wàllu démocratie ci àdduna. surtout. loolee jàpp naa ne procureur jamono bi li mu war a def dëgg dëgg dëgg dëgg du xeex droit yi Ousmane sax mais na taxaw ci droit yi réew mi si boppam ñu fexe delloosi ko mhm. parce que du Ousmane moo yitteel nit ñu la ñi ciy wax nii du Ousmane leen yitteel mais ak ak yelleefu Ousmane bi ñuy xotti te teg ko ñun ci suñu ay loi wala bëgg itam bëgg ñu koo forcer ne suñu ay loi lañ ko teg yooyu lañ xamul fan la tegu léegi nag loolu nag comme xamuñ fu mu tegu procureur na moom pour euh, delloosiwaat Ousmane ak ak ak yelleefam wala bëgg itam gëstu ay droit mhm. procureur nax bul fooy suñu xel yii ah bul fooy suñu xel yii ñun xam nañ ne xew wala boog daf am nañ luñ xam luñ xam xam nañ ne bu jóg amee xam nañ ne bu jóg amee bu jóg amee wallaay xam nañ ne du Ousmane la ay droit am nekk ci biti xam nga lu nekk ci biti mm. yërmande bi askan bi war a am ci moom ak itam bëgg ji nga xamante nii doon na ko wax askanam ak ñi mu àndal mm. moo nekk ci biti te loolu arrangé wul ñi mu denoon. effectivement combat la. dëgg la voilà mi ngi noonu nag li nga xam ne procureur jamono ji euh, dal dina koy bëgg rek mooy euh, ubbi ab l'enquête jëmale ko euh, ci biirum Ousmane Sonko ndax ne dañoo daal di violer li nga xam ne mooy àq ak yelleefam daal di diffuser li nga xam ni moom mooy ay données ak caractère personnel données yoo xam ni moom Ousmane Sonko dong rek moo ko daal di yittewoo maanaam nekkul loo xam ne dañ ko war a fësal ci mbedd mi nekkul loo xam ne dañ ko war a fësal ci public bi et Euh, pourtant am na ci ay mbir yoo xam ne xewoon nañ fi tantôt euh, ñu ngi ko doon euh, lim rawatina bu Ousmane ko bañ ko jàppee ci caravane de la liberté boobu leen ay photom dañ ko daal di publier ba sax ñu bëri naan kan fan la photo yu jugee mais Anita nëbbatuwul làqatuwul dafa daal di bind turam Anita TV euh, muy firndeel que kon moom Anita donc moo yor li nga xam ne moom mooy yooyu les photos euh, ba moo tax mu def ci li nga xam ne mooy empreinte am pour wane que ne euh, moom kese moo ko daal di am boobu la jamono ñu ngi doon sàkku te tamit nekk données yoo xam ne à caractère personnel la parce que données yoo amaana borom àndu ci loolu yoon daf koy daal di téere waaye tamit boo xoolee document Ousmane Sonko yi nga xam ne teg nañ ko ci table bi tamit da lay firndeel que ne yi ay mbirum personnel la pourtant et nañ ko sur ci réseaux sociaux yëpp ba ñëpp daal di ci jot bien vrai li aussi lu ñuy ñaawlu la ndax parce que ab sénégalais la aussi dëkk ci réew réewum Sénégal boo xam ne bu la dara dalee ay say mbir euh, mi ngi ne fàng dajji ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi loolu tamit dafay nekk mbir moo xam ne dañ koy daal di ñaawlu war bu baax a baax a baax kon procureur su voilà beesu ni mel aussi mën nañ koo ñaawlu parce que euh, ay euh, yoo xam ne à caractère personnel nit ki moo ko war a moom maanaam moo war a xam li ni mel su ne moom daal di koy wanteer euh, ci li nga xam ne mooy marché bi dañ koy ñaawlu bu baax a baax mais nag est-ce que li ni mel war na cee mën a sonn de trop su ma ko waxee mooy lan mooy que ki nga xam ne moom moo génnee bi les lettres wala bi la euh, communique wala bi la lettre pour jé jébbal ko kan ci nga xam ne moom mooy Aïssata Tall Sall ministre de la justice kon est-ce que mënu ñoo xool rek diggante bi fi mu jaar maanaam fi mu kiwee ak ci loxo kan la jaar ak ci loxo kan la jaar bañ ba maanaam ba jaar ci Aïssata Tall est que war na nekk mbir moo xam ne euh, war nañ cee mën a maanaam war war nañ cee mën a yàgg mhm. est-ce que euh, jafewul leen jafewul wax dëgg daanaka dafa dafa dafa tegu ci li ma la waxoon démb rek dëgg mhm. bu nekkee ci mpénc ñu koy war subu ba ngoon te ne dañ koo tëgg gis benn mag moo ko moo deful dëgg wala boog itam mag moo nekk ci naka si dul noonu. Mm. kon euh, yaakaar naa ne euh, xam ko moom nekkul loo xamante ni jafe na leen. léegi nag bu dee nag dafa am ñu bëgg a ciblé comme d'habitude nañ ko daan faral di defee. Mm-hmm. Euh, loolu nekkatul lu lu lu luy bett seen digg askanu Sénégal maanaam mbir am nga occasionné si loolee. pour bëgg am ñeneen ñoo teg loxo wala bëgg tam feneen foo jaar pour am ñeneen ñoo ci taxal. mais yaakaar naa ne ndax bul fàtte mbirum Juan Branco bi mu fi ñëwee. coono lu muy bëri bëri neen dem nañ def seen ay track jàpp diw ak diw ak diw kii moo jokkoo ak moom pour mu dal fii kii moo jokkoo moom pour mu jaar fii mais euh, lañ ci lañ ñañ ci tegoon loxo ñëpp ñoo la bëgg ñu ci ëpp amaana sax am na si ñu bàyyi parce que la tax rek mooy du doon du mbir fait maanaam du doonul woon lu ñu teg fenn doonañu woon loo xamante ni lu jar arrestation la mhm. bii moom itam bu ñu ñëwee jàpp naa ne ci gàttal wax ji rek li ci jar a wax mooy mhm. Ousmane Sonko amatul vie privée ci Sénégal non non vrai parce que jàpp naa ne kuñ topp da nga ma da dugg sa biir kër lu nekk ñu wax ko ci say njaboot say soxna kii kii tas na dem na fii Ousmane Sonko est-ce que am na amati na vie ci réew mi loo xam ne maanaam ñu ngi koy nëbbal Ousmane Sonko amaana kon procureur kon amaana information yu bëri bëri daf ko raw. mais dama jàpp ne même sorti Adji Sarr bu mujj jëmale ko ci kaw Ousmane Sonko. Mhm. bu dee procureur déglu woon na ko. non kon xam na ne Ousmane war naa xam ne Ousmane amatul vie privée ci réew mi. Mhm. jarul ma ñëwaat ci propos yi nga xamante ni wax na ko ci. Adji jiitu loolee. bi ñu ko tuumaalee viol ak wax yi nga xamante ni yëpp ñoo xam ne nekk ci ay cité ki télé mhm. yëkkati nañ ko comme ay vie loo xam ne ci dundu Ousmane la la yitteeloon yoonu viol bi sax nekku ci ñu dugg ci ba ci biir xamal ko Sénégalais yi lii lépp procureur dégg ñu teg ko ci benn ndondu Sénégalais mhm. mais Ousmane boobu moom arrangé wu ko woon ak nag yelleefam yoonam nekku ci woon ay droit am yoonam nekku ci woon mais Ousmane bi nekk Sébi Xotaan moom wala boog itam Ousmane bi nekk principal moom la sàmm ay droit xam naa jóob jóob gi daal moo tax ba dinaa ko mën a eh, tooñ tuuti. que ne ko Abdou Karim daal wax dëgg yàlla Ousmane moom foog naa ne ay droit jamono bi ci réew mi. jëmmi jamono lañ ko respecté. waaye ci nguur yi fi nekk moom jamono bi sentiruñ ne wala ba jàppuñu ne àqam ak yelleefam ñu ngi koy respecté léegi nag bu dee nag dañuy def enquête rek pour xam ko. Mhm. nañu defaaleel enquête ci ki wéegiti woon dañ ko war a rey. Mhm. waaye na defaale enquête ci ki ne Ousmane fi cinquante ans way juróom warul jur ku ni mel ndax kooku moom wax na liy mbir mi ba pare. yemul ci waaye nee na parti bi niñ ko dissoudre waruñ ci sax yem nañ dissoudre la nit ñi parce que loolu li koy li koy signifié mooy képp koo xamante ni amoon nga carte Pastef wala bëgg tam bokkoon nga ci Pastef dañ laa war a jàpp loolu mooy duñ dissoudre parti bi kenn mais même nit ñi nañ leen dissoudre léegi procureur na bàyyi wala xel ne yii yëpp ñu teg ko ci kaw kaw Ousmane ñàkk respecté ay droit la parce que Ousmane am na droit doon ab homme politique ci réew mi senegal oh. Ousmane am na droit dox ci réew mi di politique te duñu ko rey mais am na ku taxawoon publiquement ne Ousmane dañ ko war a rey pourtant kooku xot na ay ormam ay àqam ak yelleefam xañ na mu ngi koy jéem a xañ ay droit am mhm. procureur kookee soxlawul muy sonn ci wër bi na dem rek ci YouTube mu bind li wax nii Ousmane dañ ko war a rey ko neexee na ko bind sax ci jàpp naa dina xam ki wax loolee kon bu dee defaat ba léegi euh, taxawaay boobee mhm. na ko defaale ci Anita Diop comme ni ma ko waxee encore une fois ko ndax moom wax dëgg yàlla nëbbutuwut non non non suñu la nëbbu ñi en état maanaam nëbbu ñi en état gi xam nga yow Ndeya boo ñëwee di bind sa page Facebook Mansour. Mhm. toujours loo bind bi publier bind Mansour. bind Mansour dëgg la voilà <laughs> nëbboo Mansour gi. waaye nag nëbbu nga Ndeya gi. maanaam Anita TV moom nëbbuñu ko. waaye est que mooy Anita TV Anita est-ce que tur la. Ah. est-ce que parce que daa bëri. parce en général surnom lay doon. voilà léegi nag Anita TV googee nañu dimbale ba ñun ñu mën a xam Anita dëgg-dëgg. mooy kan li tax ñu soxla ko. non du question que li muy xaxar waa Pastef ban audace maanaam li tax ñu koy ñu ñu koy sàkku du li muy xaxar waa Pastef wala li muy combat ñoom xam nga lu tax mooy dona yoo xamante ni jàppoon nañ ne lii suñu ay kilifa ñoo ko war a yor mm-hmm. wala boog lii ci force de défense et de sécurité la war a nekk su dee sax war nañ ko yor moom mm-hmm. ñu gisee ko ci moom jaroon na képp publication bi mu defoon ci photo Ousmane ko ci biir oto gendarme bi mm-hmm. surtout boobu doon na képp vidéo bi nga xamante ni amoon na ko ci Ousmane bi muy wàcc ci oto bi doy na képp mu xamal ne kan mooy Anita ci bagage yi nga xam ne jëloon nañ ko ci Ousmane. te mu làmboo woon passeport am ak leneen ak leneen ak leneen ci moom. ba ci ay armam ay portable am lépp mu fotal ñu ko publier ñu ko. parce que Anita boobu dañ ko war a xam ndax kat moom li muy incarné ci suñu wàllu sécurité ci réew mi oh, dafa jot nit ñu xam ko dafa jot nit ñu xam ko xam ne kii kat wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla mu ngi bàyyi xel lu bëri ci suñu ndax moom xibaar yu bëri bëri suñu wàllu sécurité amaana sax xaareetuñ ko ci gendarmerie police wala feneen ak feneen mm. mais ci ANITA lañ koy xaaree ji. ok procureur nañu jàppale bu paree ci lii wala laataa muy sowu ci lii nañu dimbale ci yi fi jiitu woon ci table ci voilà mi ngi noonu nag mu nekkoon mbir mu Ousmane Sonko ak euh, médecin yi alerte yi nga xam ne daal dinañ koy def bulletin de santé Ousmane Sonko bi nga xam ne euh, dafa daal di euh, fuité dal di ne fang dajji ci réseau sociaux yi moo waral nag communiqué bi nga xam ne mu ngeen di gis Abdou Karim Diop procureur de la République daal di koy génne dal di ci àddu ko ne li ni mel nag dañoo daal di salfaañe ak yelleef Ousmane Sonko ndax dañoo daal di publier ay données à caractère yoo xam ne Ousmane Sonko rek moo ko daal di moom ñu publier ko moo ko war a daal di euh, gis ak leen ni mel ñu publier ko ci réseaux sociaux yi léegi nag ki def loolu nag le procureur di daal euh, moo tax mu ubbi ab l'enquête euh, jëmale ko ci boobule mbir képp koo xam ne rek laale nga ci ca boobule fuite boobule bulletin. jàppal ne yoon dina daal di def li nga xam ne moom mooy liggéeyam loolu nag le procureur Abdou Karim Diop daal di xam li communiqué bi aussi tamit ci réseaux sociaux daal dinañ koy partagé pour wane que ne képp ko